naa ñëpp fii laay tàmbali yéen la li mu laay la ñu jëm ndax seen chef de li mu def moo yéeme te doy waar yëgle kaay gi naan man moom kay xawma waa village ba lu ñu war a wax xol doxantul ba ca fa nga xam ne moo di ca bindoon naa ci aw village boo xam ne ma ngay wéy ci turu Balla Ba seen waa ji di wéy ci turu ma Lamine di chef de village ba fukki ati kaso ko tëj yëgle kaay gi naan man ana lu ko waral boo dégloo dégg yëgle kaay gi naan man chef de village bi ci jëm boppam xam nga lan la doon def da doon trafic dorog ci biir këram yëgle kaay gi naan man di jaay yàmbaa ci kër ga wée tëtëtët seetal ma lii tonu yàmbaa ton laa la wax la ñu fekk ca biir këram moo segam de village def nii waa village ba fu nu jëm moo yow ku ci jaadu ku lay jubbanti jub jubal geeg jubbanti gi ci jëmi boppam war nañ koo jëmale nag ci li nga xamante ni moo di xàll wu ñuul wi la di tali bi la yëgle gi naan man faaw nu wax ci nag xoolaat bu baax a baax li nga xamante ni moo war sofóor si si wàtte yi ci tali bi moom nay leer tàggan ba sàggan jeex yëgle kaay gi naan man sofooru bis bi nga xamante ay jour la yeboon kenn gënu koo sàggan ca diwaanu jurub la xewe mbir mi ca dëgg dëgg dëgg nag safoor si waa léeg-léeg nag ñu nemmeeku li nga xamante ne moo ni indiscipline dëgg ci ñoom ñàkkub yar seetal ma lii anan ngay doone aw safoor yorub bis yëpp ay doomu aadama yu bari say dàll summeeku nga bëgg koo solaat saxawoo ni da ngay sol say dàll di dawal ba oto ba saaraan yëgle kaay gi naan man ni xër-xër ni xëpp da ngay seet lii rek yëgle kaay ñeneen faatu ca waaye nag am nañu co jëlee ay blessures yu metti loolu yëgle kaay gi naan man indiscipliné dee tax chauffeur bi ci jëmi boppam xalangal bis ndax solo ay dàll képp rek dong waa yow lii jerte woote réunion ah kay nan wax ci geneen accident goo xamante ne moo am ni ki démb <laughs> ci àjjuma ji yëgle kaay gi naan man accident gu metti loolu am na fa nga xamante ni moo di ca mbuur <laughs> fu nu jëm ba yow man la accident yu bari yi ci réew mi duñ jéem a seetlu ji xool ana lan moo ko waral def ci ay tegtal ak jàmmoo ngir jàmm ci yëgle gi naan man mbànjaa fa la bu metti bu yéeme métti doy waar bi amee ca saasa ca saasa ñetti nit ñàkk fa seen ay bakkan ñeenti ñi jële ci ay blessures yu metti lool yëgle kaay gi naan man moom koy métti na doy na waar accident yaa ngay wuy di am ci réew askan sunu gaal gi démb kay ministre de l'intérieur demoon na ca Banja laa la wax ginnaaw accident gi nga xamante ñetti nit ñoo fa ñàkk seen bakkan Banja nga ca Mbuur bu ma kenn laaj dëkk ba fu mu ne kàddu fa jib yëgle kaay gi naan man bokk nekk ci yoon wi ñoom ñoo deful seen liggéey ci ni mu waree tur bi yëglekaay dafa ëpp nag seetal ma li diggante 25 juillet ba ci li nga xamante ni moo di 2 août démb gi ñaar fukki nit ak juróom ñàkk nañ seen bakkan ci ay accident wu yoon wi xoolal ma fukki nit ak ñaar ñàkk nañ seen bakkan ci accident gi amoon ci diggante Ngaay ak Kébémer yëglekaay gi naan man fu juróom benn nit ñàkk seen bakkan ca Ndulu Maaji ñetti xale aw camion saaraan dal ci seen kaw ca Sareya ñeenti nit faatooti ci fii ca Bandia ministre de xamante ni mooy lu ni mel denc ñiy nekk ci kaw tali bi yëpp xoolaat bu baax a baax ana naka la ñuy doxalee moo xam sëfoor seeg takk der yi yëpp laa wax revue de presse di jour ko xam lay café balaa neex saf-saf ak jar fuur foor tàng jëri ngay naan di simb leexu su su ay yëgle kaay naan maam moom ministre de l'intérieur nee irresponsabilité dëgg dëgg dëgg lees meeku ci ñi nga xamante ni ñenn ñi ñu ngi dawal waaye complicité bi nga xamante ni nag moom la voyageurs yi di am boo duggee ci ab wata gis ne wata bi li nga xamante ni moo ci war a nekk nekku ci moo xam mu surcharge mbaa sëfoor bay dawale lu ko neexee dénoncé ko waaye wax naa itam ci défiance bu doy waar bi nga xamante ni moom la service technique yi nekkee ak corruption bi nga xamante ni moo am ba ñi nga xamante ni noonu la ñu war a contrôler wata yi duñ ko contrôler nu ni mel te dëgg-dëgg ci lépp la ñuy jóg fexe mu jóg ci réew askanu sunu gaal gi la jub jubal ak jubanti diggéey jet bi kay dina daw ci kaw ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi ci kaw tali bi BRT gi ma ngay dicté ay loo am nag di xool na nga xamante ne moom la bëgg lépp lu jëm ci wàllum puus-puus waa ak ay sareet dañuy tere nag ñu daw ci wetam bay ci aw yoonam nag yëgle kaay gi naan man Dakar Presse ay wax de fi jonni tembe BRT bi kay dicté na aw voie sareet yeeg yenn puus-puus yi bu nu aw ci sama yoon yoonu barsaak barsaak gi lee saa suñu xëy ci sensibiliser gone yi ci dimanche kon sunu gaal na toog liggéey fii am na fi yoon mën naa ne ñu yoon wi dem ca jeux olympiques ya yëgle kaay gi naan man ca fa nga xamante moo di ca Paris la France ñoom ci seen jëmi bopp di ay sénégalais enquête yëgle kaay nga naa ma ci jeux Paris yi lee 2024 waa ana lan moo tax sénégalais yi ci jëmi boppam wanewun seen bopp fësuñu fa brillé wun de dëggalunu seen bopp comme ni mu waree lii daal jar waxtaan yëgle kaay gi naan man Bassirou Diomaye Diakhar nationale de l'arbre lancement campagne nationale de reboisement yëgle kaay gi naan man fa Touba bés bi kàddu gi nga xamante moo di préférence nationale du régime bi lée ma nga naan moom ci jëmi boppam moom mi nga xamante ni mooy njiitum réew de bu wattuwul dina def comme la Macky Sall defoon lefe yëgle kaay jox kàddu gi ki nga xamante ni moo di Khalifa Sall mu écarté lépp lu jëm ci wàllum alliance ak li nga xamante ne ñoom ñoo di gouvernement bi lée moom Khalifa Ababacar Sall de opposition waa moom la wooteeg fi poog ñaali bañ naa gu mat sëkk laa la wax sax woo ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi nekk ci ku jég ngeen ñu ànd la koy yëgle kaay gi naan man Khalifa Ababacar Sall ma ngay waajal législative yi ci jëmi boppam député yo ñi nga xamante ne ñoo ne ni amul député amul présidentiel amul maire ak lu mën a doon la wax ñun nee nañu jàkk tëw xeeb sunu candidat bii di Karim Meïssa Wade ñooñoo waa PDS la ñuy wuyoo rawatina ña nga xamante ne ñoo nekk ca Thiès waa fédération urbaine bu Thiès kaay yëgle kaay gi naan man ñoom day neeñu du ñu bàyyi du ñu daw du ñu tàyyi yëgle kaay gi naan man Mor Diouf day nee jàkk rek ñun dee Karim Meïssa Wade ci jëm boppam moom la ñu Abdoulaye Wade xooloo te moom la ñuy xool moom la ñuy àndal te dara duñu ci jëlee moom Mor Diouf di sant ak gërëm Abdoulaye Wade de yëgle kaay gi naan man juróom fukki at la PDS am borom plan Reva borom plan Jaxaay ku ne gis na réew mi ko jëlee ak fu ko yóbbu Mor Diouf ne fu nu yóbbu nu dem ñun moom la ñuy àndal kii de yàlla na ko yàlla yërëm yëgle kaay gi naan man Alimar la yuyoo mooy meerub Tëngéej Rufisque Ouest ci jëm boppam faatu na yàlla na aljana di kërëm amin waay waay waay waay waay bu baaxee rek ba sama clavier ñu dem bu subaa ak jàmm ak salaam yéen a ngi doon déglu seen revue de presse wolof ak Fall Damel jaageen jëf jërë ngeen jëf jaageen jëf waaye yéen nag accident yi nag doonu ci wax nag mbokk yi yéen ñi teewlu nag sëriñ Abdou Salam Sarr nana wax ci accident yi nga def ci ay tegtal ak jàmmoo ñu lijjanti lu nu mel maa ngi nuyu bu baax a baax a baax euh, Maguette Touré madame bës madame waaw madame Touré borom Beuz bi madame Beuz waaw maa la wax lii ah di bëgg bu baax a baax euh, El ah Cheikh Saad bu Fall sama sama doomu baay njool mi maa ngi koy bëggee bu baax a baax baay daam ñoom jëree ah, ah Amadou Papi Mbouraake Diagne ñëpp rek bëggee naa leen jox leen seen wàcc waaye di leen kontaan di kontaan ci képp koo xamante ni yaa ngi nuy bàyyi xel. di nuyu képp koo xamante ni yaa ngi nuy teew teewlu également mbokk yi ñu waxaat rek ci accident yi sëfoor si ah dimbali leen lu dimbali seen bopp yéen sëfoor si waaw xool na li nga xam nga ne indiscipliné weesuwul ngay dawal ab wata lu toll ni biis yëpp ay nit nga ni da ngay sol say dàll loolu daa mën a ne. mënta ne ah buñ ci noppee noo wax nag ak ñi nga xamante ne nag dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ñooy clients yi man clients yi sax laa gën a war a gën a waxal nag dangay nekk dugg ci ab oto chauffeur ba naa fëy fëy way way way di jom nga naan laay di tudd yàlla ak so ay doom defal ndànk ak booy grand defal ndànk waaye sa waay dawal ndànk waaye ak nuy rey waaye ay bakkan nga yëpp waaye lan am si ñoo xam ne naan xiim noppi du nu wax seen fit wi di aju ba keroog nuy wàcc waaw loolu nag nit neex na dugg ci ab wata fay sab xaalis ba pare tiit ba keroog ngay àgg ah loolu neexul waay léegi nag bu leen complice bu leen doon complice complexe bu bu leen ci dugg bu mu leen dugal ngeen doon complice xam nga complexe gu ëpp mën na laa yóbbu ci nga doon complice maa la wax lii bu leen complexe benn chauffeur chauffeur boo xamante ni gis ngeen ni li muy dox du yoon wala li muy def du yoon dénoncé leen ko ah ñi ci tali bi itam bu leen nangu kenn ku leen def leen waaw waa déet nag damay wax rek waa damay wax rek waaw contrôle bu ci war na am amul amul am na pièces yu manqué wala wata bi nangam wala lii wala surcharge wala laa déedéet soxlawuma lenn mën na jaar yoon rek bu ko defee mbir mi dox ah, Bàjjan Xuja waxal ci lii sama xol bi jeex na ci tàkk rek tàkk tàkk tàkk rek ah kontaan bëgg képp koo xamante ni nag yaa ngi may teewlu di ma bàyyi xel waaw waaw waaw ci télé bu mag bi di Sélé di di Sénégal télé waaw yéen ñi nga xamante ni yéen may teewlu ñëpp ci Sénégal télé kontaane naa leen ah la wax lii ah seen télé bopp la di yéen a ko moom ah yéen a ko moom yéen a ko moom waa Thiès info ndeysaan ay jàmbaar lanu sama gaañi ba am ngeen jàmm. Baye mu Yar di bëggee naa bu baax a baax di bëggee Samba Balde di bëggee Khady Anne Khady Anne sama nit la Lahat Diop maa koy nuyu bu baax a baax di bëggee Babacar Gaye sama nit la man koy bëggee bu baax a a baax waaw waaw. nee na ma léeg-léeg waxtaan ci yaay am na solo ndax ni ma koy waxtaane la nag ndax dama ko gëm li may wax jërëjëf merci beaucoup kontaan ci Oumar Diallo bu baax a baax Kéba Dia Mor Seck maa ngi koy nuyu Lamine Cuuraay Lamine Touré borom Gambi maa ngi bu baax a baax ay fay sama xarit la maa ngi bëggee bu baax a baax Abdou Kane di bëggee bu baax a baax Binta saar tey ñu commenté dañoo xaw a takku nag Thierno Mbaye ñëpp lay li du Diouf maa ngi bëggee saat bu ah saat bu Fall kenn la borom tegtal ak jàmmoom moom gut job la may may sama waay la yàlla sa la sax <laughs> ah baax na ah am na beneen bi ci topp borom raaxibul bu raax gi <laughs> ah baax na moo yow daal yow Cheikh Saat bu doxalal rek maa ngi sa ginnaaw maa ngi bëggee ab sa gi bu baax a baax di bëggee élage ba di bëgg bu baax a baax alsaan Diouf di bëgg Saliou Sila waaw kooku sama nit la Cheikh Omar Diop maa ngi biggee Dame Kunta de maa ngi koy nuyu Ousmane Samb waaye yéen le 28 décembre sëñ Abdou Salam Sarr daa woote ak cant de ca Jaxaay 2 waa nu ngeen koy waajale ci commentaire yi ku nee nag ma wax noo koy waajale dañ cay dem Cheikh Wade maa ngi koy bëggee Fatoumata Bint Diallo jajaa jóob kii sama xarit la sama xarit la maa ngi lay nuyu bu baax a baax amal jàmm man it itam yow laay bëggee wilaay ndeysaan man it bëgg naa la te yàlla rek tax ah ndeysaan jajaa jóob foo mën ne ci biir réew mi mbaa bitim réew fekk naa la fa ni la jàpp loxo yéen ñëpp sax ndax yéen ñëpp ma bëgg daam base li ngi nii wilaay ndeysaan ndeysaan ne na merci pour le wolof profond aussi nee na daal wolof yu xóot laay dugal ah wax baña ah waay caaw bañ dugali wolof waaw jaw maa ngi nii Ami Jabaay maa ngi koy biggee kooku sama yaay la moom yàgg na maa bëgg Karamba Kayta man nag dama xamul ndax ba ban Karamba la ci ma Lamine Cheikh maa ngi koy biggee Aline Fall sama xarit la grand maa ngi lay biggee Papa Diop Serge John sama nit la sama xarit la Ami Jabaay wax naa ko léegi yaay la Mamadou Lamine Ndiaye Thierno Mbaye maa ngi biggee Mamadou Makhtar Diagne Maodo Kane Mamadou Cissé Cissé ah cum Maba Cissé bëgg naa ñëpp wax ki nguna wax ki nguna dañ may teewlu nee na ma ay waay ndaw Samba nee na ma RTS di laa la yéene jërëjëf ñàngal lay maa ngi koy bëggee di bëggee ay Bousso di bëggee Dame Basel di bëggee Mas Pouy di bëggee uh, Ana Pouy Ana maa ngi koy bëggee waaw góor merci Sam Seck maa ngi bëggee astok Diop bëggee naa ñëpp waaw di bëggee waa pirum ndëri kiip bàyyiwuma kenn maa la ko wax jaxate laa sama xarit maa ngi ko bëggee jaxate mbaa am nga jàmm ak salaam di bigg képp koo xamante ne yaa nga ci pirum ndëri waa ah, ah, waay pirum ndëri Cheikh Fall ñëpp rek pirum la yàlla dogal mi naa bu baax a baax waa Gosaas waa waa Gosaas hé hé naa leen jox leen seen wàcc waaye leen kontaane di képp koo xamante ni yaa nga ca Kaolack ndangaan Sédhiou Matam ba ci Kicoor maam jaara Cissé borom kafe gi maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax ah si ah baña baña bégee maam jaara borom kafe gi ma am nga jàmm léeg-léeg nag matee may jox kafe mati maa la wax lii kon nag gaañe ñu jox leen dig daje eh, kontaane leen bu baax a baax di leen wax ne suba mooy dàq incha allahu rabbi jërë ngeen jëf seen mbokk seen xarit Fall Damel ci kàddu gi ba suba ak jàmm jaajëf jëf